le mandataire pour euh, coalition présidentielle de Sonko 2024 Mon na def na euh, tout d'abord il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale attentive à ce qui se passe au Sénégal depuis le 16 mars 2021 euh, que la coalition de partis composée du Front national de l'Union des forces patriotiques et du comité de réflexion pour un développement intégral a porté la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. mingo li nga xamne ke modi Euh, euh, ñi nga xamni itam ñu nekk ci daanug biti rew waye itam ñi nga xamni itam ñoo nekkee ci daanug rew mi euh, ñew ci ben coalition bo xamni itam amna parti politique bu si mel Front National waye itam amna parti politique bu si mel ni Union des forces patriotiques ak aussi ben ko parti politique bi nga xamni itam ñu koy tuddé comité de réflexion pour un développement intégral ñom ñoo daal di àndandoo porter la candidature bu Ousmane Sonko ci présidentiel présidentielle atoupa 2024 ki nga xamne ko modi di Maître Clédor nag mu daal di avocat jëmale ci nga xam que moo Ousmane Sonko mom moy mandataire bobu de li nga xamné que modi coalition di Sonko 2024 ñoom nak nag euh, ni seenu turu coalition l'un des demee fa nga xam ni itam conseil constitutionnel depuis le 11 décembre 2023 nak nak dossier Ousmane Sonko daal koy déposé ni ki li nga xam nekk le 12 décembre 2024 euh, le 14 décembre 2023 nak jàppee ni itam li nga xam nekk greffe du conseil constitutionnel dafa daal di envoyé euh, convocation bi nga xam ni itam tey jii damoo neen suba fa nga xam ni conseil constitutionnel ni li nga le 29

Monsieur Ousmane Sonko euh, a satisfait de toutes ses obligations mises à la disposition de la constitution maître Ousmane Sonko a li c'est ak conseil constitutionnel matal peut-être manqué aussi la loi électorale le règlement et les arrêtés ministériels l'État du Sénégal a posé euh, tous les actes inimaginables pour entraver le dépôt du dossier de candidature et la communauté euh, nationale et internationale en été témoin. mu daal nak état du Sénégal def na kim kattanam ñu daal di wala mën éliminer li nga xam ne que moo candidature bu Ousmane Sonko mit kala daaw mu di japp ni nak askan wi fekkee euh loolu lepp nak ñu nekk si réew mi comme ñu nek si wàllu ko biti réew mu di japp ni nak l'avenir de la démocratie sénégalaise tient désormais aux sept signatures euh, des sages du conseil constitutionnel jàpp na ne réew mi mi ngi daal dépendre si juróom-ñaari signature yi nga xam ne itam maanaam juróom-ñaari xaatim yi nga xam ne itam conseil constitutionnel dinañ ko daal di amal ñu daal di toll si juróom-ñaar les sept sages dinañ ko si daal di yegg ni incha allah donc ki nga xam ne moo di Maître Clédor Ka daal di yëkki.

bon, tout se passera à merveille, mm, mm. <clears throat> à, la condition que Pastef, euh, en tout cas, euh, de forcing, euh, ñi dem defi investiture dans un autre endroit peut-être qu'un endroit fermé une grande salle et tout mm, ça mm, mm, mais bon, de demee à capes, comme nous ko comme nañ ko euh, prévoir j'en sais euh, en tout cas je sais que le commissaire central mom, dañ ko en tout cas du leen ci donc dañ ciy gis après boo moytul en tout cas ay ay xiro yu yu nga xamante ne parce que ñoom tey jii nii man je pense que pasteur dafa nekk ci benn logique boo xamante warul may

Et malheureusement, en tout cas, le PASTEF que je vois, donc peut-être qu'ils sont résolus à faire cette investiture-là. Mais moi, il y a carnane beaucoup de En tout cas, Fenen faut Akapes, investiture n'est que ben réussite. Parce que investiture aussi, c'est vrai, c'est symbolique. Symbole mm. mm. Au-delà de la, de, la mobilisation de la grande masse, il s'agit aussi de communiquer, de montrer aux Sénégalais que nous sommes prêts pour aller aux élections mm. présidentielles. Voilà telle personne qui est notre candidat. je pense que nous devons aller en tout cas, c'est sécurisé euh, voilà d'un ko fa fait hmm. mais bon euh, en tout cas insister nar défé defee terrain ak APES mm. alors que tey jii ni préfet bi mom mu ngi waajal euh, euh woon a tàq der yi woon a ñëpp euh, mm. pour que xama euh, yëf yi baña a am mm. je pense que après euh, japanté bu bu amul ben sens mo fay am voilà kenn xamul luñ fay jëlé lan la après donc dina doon lo xamante tay tey nañ ci profiter ñom ñi def ci ben bat bat buzz en tout cas bok def ci ben communication bi nga xamante ne dañuy discréditer le Pastef alors c'est clair euh, ñom na légui grande coalition

wax rek. gars yi eh. da da dafa <laughs> am fu ñu lay xaaree. Eh. ah dañ lay galgal donc ñun moom wax dëgg yàlla en tout cas nguur gi moom mayuñ ko dara. Mm-hmm. Amadou Ba duñ ko may dara. Mm-hmm. ah lu ñu lu ñu lu ñu tax a jub lenn rek la. moy hmm. amaat benen Sénégal bu bees. Hmm. Sénégal bo xamante ne politique du dépendre benn état. Hmm. Sénégal bo xamante tay domi sénégalais ñoy décider Sénégal bo xamante ne bu ñëwé fi dañuy plier à la volonté du du gouvernement. et pas le contraire un Sénégal qui va répondre aux besoins des Sénégalais. Sénégal bo xamante le rêve de tout Sénégalais va prendre forme. et on va consommer une bonne fois pour toute la rupture coloniale. ñu on a am suñu monnaie bop Babacar diow wax na ko bu ma euh, hymne national bi dama koy changer parce que pourquoi en réalité sans réalité. Euh, ça ne reflète pas la réalité sénégalaise. Mm, mm, mm. On ne ressent pas l'histoire sénégalaise derrière, derrière Ibn Boum. Non. En tout cas, nous donne un projet de souveraineté que nous avons porté. L'objectif mm -hmm. est de que nous sommes sur tous les plans. Sur le plan économique, politique, sur le plan militaire. Les bases militaires françaises là et autres là, qui n'ont qu'à quitter chez nous. C'est une base, ça leur coûte de l'argent. Nous devons investir, c'est une crise. Nous devons investir dans ce noonu Nous ñun ñu bëgg que ni ñu mën a tabaxaat Sénégal bu bees. loolu noonu moo nekk ci moo nekk ci Babacar Diop mu mm. nekkaat ci ñeneen mm. waaye lu ñu gënal mooy que ñu jël liggéey bi ñu teg ko ci yoon mm. képp koo xamante ne sénégalais yi wóolu nañ la rek ñu daal di fal am na solo

Euh, d'autrui euh, mal intentionné waaye tam entrave euh, à la libre circulation des personnes et leurs biens beaucoup de yi itam jëmale si li nga xam ne moo place donc loolu leen sur table nous li nga xam tam itam ñoo di waa centrale à aussi centrale bu Dakar moo fas yéene de di li nga xam exécuter vos di décisions alors mbokk téléspectateurs yi di len jaajëfal bu baax a baax a baax ànd bi way tam ak internet yi nga xamni tam itam ñun ñoon doon bay xel bu baax a baax suñu ay antenne ci euh, li nga xam ne Sénégal sang TV merci beaucoup aussi à l'ensemble de nos intervenants et intervenantes bokku na ci ki nga xam ne modi di Assane bu Pastef Payar waaye itam bokku aussi ci ki nga xam ne modi Eva bu Sonko 2024 Bonjour ñu si programme est passé des excellents moments sur euh, notre compagnie lépp plus xam tam entre temps dinañ ko daal di reprendre li xam une édition spéciale bi dans le souci d'aller jox information yi actualité en temps réel Bonjour de notre programme merci à l'ensemble des équipes en régie Ali